salaamaaleykum internet yi daleen ak jaamu Champions League demi-finale aller yi tey ji tàmbali nañ ko match bi ci njëkk ma ngi doxoon diggante Real Madrid ak Bayern Munich Bayern Munich na moom lépp lu mu am rek attaqué moo may voilà ñu doon rek ñu ne prip ñu dal tàmbali li xam ne mooy attaque dal ci kaw Real Madrid mel na ni ñii di Real amoon nañu jafe-jafe sax sax ngir génn waaye nag dañoo gis ne lu toll ci fukki simili ak juróom bi nga xamee ne ñu ngi attaqué ay occasion def ay tir moo xam yu ñu cadré ak yu ñu cadré gannaaw bi nga xamee ne génn nañ ci situation boobule ci la ñii waa Real Madrid daal defi pexe ñoom daal dugal li nga xam ne mooy ab but ci li nga xam ne mooy première tir boo xam ne daal dinañu koy cadré kon loolu mooy li nga xam ne mooy pexe yi Real Madrid daal nas moo ci def liggéey bu ama am solo paas bi nga xam ne def na ko tey jile nekk na paas bu jara waxtaanee wala bu jara seetaanaat ndax ki nga xam ne mooy Toni Kroos li di bàyyi football donte ne li nga xam ne mooy beneen at ngir des ci la daal di caché daal di jox ki nga xam ne mooy Vinicius Junior li nga xam ne mooy ballon bi Vinicius nag dal di uppi caaxi voilà gannaaw passe bu rëy boobu nga xam ne Toni Kroos dal di a def ballon bi ndax na jamono yooyu ngi dal di téye koy junj fi nga xam ne fa la war a dem ngir fekk fa ballon bi mu ko nar a passe yéen ngi gis noonu loxo bi ci la Vinicius dal di déng maam départ Toni dal di déng dugal ballon bi comme ni ma leen ko waxee caché li nga xam ne mooy deux lignes yi nekkoon ci kanamam Vinicius dal di jaar ci gannaaw jël ballon bi jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Manuel Neuer dal di ubbi caaxi mooy bit bi njëkk ci match bi waaye nag bi ñu gisee ne ñi nga xam ne ñoo di waa Bayern Munich réagir nañu ndax kat ñoom it équipe lañu bu mag boo xamante ni maanaam du ñoom dañuy taxaw rek di seetaan ñuy dal seen kaw donte ne gis nañu ne joué nañu bi Bayern Munich dafa jël ki nga xam ne mooy Leroy Sané yóbbu ko côté droit nga xam ne da ngay dafay mën a xuus di dugg ci biir surface bi voilà di mën a def li nga xam

dribble jaxase défense li nga xamante mooy Real Madrid bi dugg ci biir surface bi foofu ci la ko daanee da gis ne kon loolu ay pexe la woon foofu nag ci lañ ko daanee ñu daal am penalty penalty boobu nag moom la Harry daal di égaliser ba noppi daal di jiitu ñi di waa Real Madrid muy ñaari bal ci benn comme nag Real Madrid équipe la boo xam ne moom boo ko jamee dafay réagir loolu nag moo daal di indi ñoom ñu daal di génn attaqué daal ci kaw Bayern na ñoom it forcé di égaliser donte ne bal bi nga xam ne sax moom la ñuy xaw na yéexe ñëw ndax mu ngi dugg ci quatre-vingt-quatre minutes ki nga xam ne moo ko dugal mooy Vinicius Junior gannaaw bi nga xamee ne kat ñi la nag ñi di wax Real Madrid dal am li nga xam ne mooy benn penalty gannaaw bi nga xam ne Vinicius Junior moo téye ballon bi voilà dal di dégg maam dribble ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci kanamam yépp dugg ci biir surface bi foofu nag dégg maam bi mu yàkkalee ki nga xam ne mooy Rodrigo voilà ki nga xam ne mooy Kim Man Jae dal di koy daaneel Kim Man Jae boobu moo dal di indi li nga xam ne mooy penalty bi kii di Vinicius Junior dal di koy marqué lii mooy li nga xam ne mooy xew ci jogante gi muy deux partout benn ak benn penalty maanaam benn ci open play beneen bi ñu dal di koy benn tam ci li nga xam ne mooy penalty kon mel na ni ñaari équipe yëpp daanaka ñoo a niroo ni ñu footballé ndax ñaari équipe yëpp dañu doon attaqué ku nekk ci ñoom xam ne ñaari équipe lañ yoo xam ne dañuy attaqué fort mooy seen attaque donte ne ku ci nekk ci ñoom am na jafe-jafe ci défense bi waaye nag ku ne xam ne ne Bayern mën na ci du équipe buy tëdd buntu këram di xaar kenn Real Madrid itam lépp lu mu am daanaka ci Vinicius ak Rodrigo la ko jëlee ndax mooy ñaari gone yi nga xam ne ñooy daal di dénk maam def liggéey bi ci kanam moo tax ñoom ñaar ñëpp fees nañ ci jogante gi kii moo dugal ñaari bali keneen ki moo daal di indi li nga xam ne mooy penalty bi bi jogante gi jeexee nag ki nga xam ne mooy Vinicius Junior moo nekk homme du match ndax nag dafa dal di def li nga xam ne mooy jogante gu rëy ba noppi dal di marqué li nga xam ne mooy ñaari bit moo tax moom la ñu tànn dal koy def homme du match ci jogante googule beneen mbir boo ne moom Vinicius tey ji dal dina koy def mooy dal dinay am ak benn ci Ligue des Champions depuis 2021 ak léegi voilà mën nañu wax ci ñetti at yile mooy bi nga xam ne moo ëpp lu mu dugal ay but ci Ligue des Champions fanweeri bal ak benn wala bokk moo ëpp lu mu contribute ci li nga xam ne mooy Ligue des Champions maanaam bit yi nga xam ne marqué na ko ak passe yépp kon dafay toll ci fanweer ak benn mooy ki nga xam ne moo ci ëppale Kylian Mbappé moo ci topp moom 28 la daal di am Robert Lewandowski mu ngi ci 25 ki nga xam ne mooy Erling Haaland Karim Benzema 22 maanaam depuis ak léegi Vinicius Junior mooy joueur bi ëpp voilà lu mu contribué ci li nga xamante ni mooy ay but ci wàllum Ligue des Champions bu dee Harry Kane bi nga xam ne moo daal di marqué ñaareelu bitu Bayern Munich bi boobu moo nekk son 43e but ci saison bi maanaam ñeent fukki bal ak ñett ci saison bi ñu nekk nga xam ne mooy saison bu njëkk ak Bayern Munich moom Harry Kane daal dina koy dégg maam dugal ñeent fukki bal ak ñett ci ñeent fukki jongante ak ñett bi match bi jeexee nag ki nga xam ne mooy Thomas Tuchel bi nga xam ne mooy tàggat équipe bi di Bayern Munich daal dinay xam ne ne fi mu ne mbir moom leer na li nga xam ne mooy situation bi léegi dafa mu ne rek moo leen a dem ci Wembley moo leen daal di bi foofu la maanaam fekk Real Madrid dóor ko moo leen di yóbbu ca Angleterre ñu daal di jouer li nga xam ne mooy final bi mu ne loolu rek la cinquante cinquante la danañu dem foofu la nga xamante ne mooy ca Madrid voilà ngir jéem a gagné match bi dal di dem foofu la nga xam ne mooy ci wem li mooy situation bi leer na nañ ñu amul benn calcul loolu ki nga xam ne mooy tàggat équipe yi di Bayern Munich di Thomas Tuchel moo ko daal di xamle waaye nañu gis ne ki nga xam ne mooy Thomas Müller moom bi ñëwante gi jeexee dañu ko tàllal micro di ko laaj mu taxaw foofu voilà di jàngal match bi ak di wax ni nga xam ne ñoom xëy na noonu la ñuy footballé waaye li nga xam ne moom lañ waroon def xëy na te defuñ ko waaye ñu gis ne nag ci yooyu jamono ki nga xam ne mooy Tchouaméni moom mu ngi koy teewlu maanaam dafa yoot xam naa taxaw ci wetam di ko dégg moom nag bi ma ko gisee rek mu ne journaliste bi voilà ki nga xam ne mooy Tchouaméni mu ngi nii mu ngi déglu dafa bëgg a xam suñu tactique ngir match retour ba mu xam fi ñuy jaar voilà moom kii di Thomas mu nekk nag joueur boo xam ne day ku intelligent la donte ne mag la ren ji jàppoon nañ ne dina jógee foofu la ca Bayern ba tey jii ñuy waxee ak yéen amaana saison bu jeexee sax mu jógee fa waaye ba léegi ni joueur bu muusee ni moom voilà ak xarañte gi nga xam ne am na ko jàpp naa ne bokk na ci liy gën a dimbale Bayern ba muy mën a yegg ci li nga xam ne mooy yenn niveau yi ci yenn compétition yi tey ji titulaire la woon voilà waaye dañ ko mujjee génne bi mu defee jongante gu ama am solo moom kii di Thomas Müller kon gars yi mu ngi noonu biir Müller na retour bi moom fileeg semaine la a laajte amul noppalu amul dara voilà benn képp la ñuy toog ngir amal li nga xam ne mooy match bi voilà foofu la ca Madrid ñu gis na nag beneen match dina am ni ki suba voilà boobu itam aju ci demi-finale aller yi mooy diggante Paris Saint-Germain ak Borussia Dortmund